ak tey jile euh, daal mën nañu wax ne euh, bés bu nekk ñu ngi daal di nekk ak moom ndax dootuñ ko fàtte ndax liggéey bi nga xam ne jot nañ ko def loolu waral ñuy xam ne ne kii di euh, njiitu réew Sénégal Macky Sall daal dinay jël turub CESTI maanaam école bu mag boobu nga xamante ne dafay jàngale ñi nga xamante ñoom ñoo yëngu ci wàllum tàggat yaram mu jox ko ko kooku leen di Mame Less Camara ki nga xam ne moom mooy Mansour hmm. Mame Less Camara ana lan ngay wax ci moom ci ki moom mooy kooku ak dund bi nga xamante ne peut-être am nga ko moi je pense moom lees euh, euh, li des mooy ñaanal ko. Mm-hmm. parce que chaque sénégalais kenn ku mu mën di doon bénéficier wu nga ci moom. Mm-hmm. Euh, ci xam-xamam ci expérience am ci humilité am ak clairvoyance am Mame Less Camara même ku jaawal ci loxoom fu mu jàngale ci école jaar nga ci loxoom ci mu orienté la ci mu woo la jox la position ci mu woo la encouragé la ci mu woo la wax la nan nga war a def mm-hmm. Mame Less bokk ci gën a may ndaw ñi ñun bi ñu gën a nekk ndaw di la may fit di la encourager di la dimbali di la di la di la dooleel ci wàllu xel wàllu xalaat foofu nga ko teg foofu la parce que milieu bi <laughs> dafa xaw xajam euh, micro dama koy faral di wax moo xaw a siis hmm. am na benn génération boo xamante ni bi dañu percer mais difficilement parce que <laughs> y avait des yoo xamante ne booy xamatuñ dara booy yi nii booy yi nii journaliste wala tëdd fi nii maam les lay gëmloo ni métier bi ak wërsëg ça n'a rien à voir. Hmm, c'est ça da ngay nekk journaliste mais da nekk ci luy tax nga am koom pour génn ci bëtub ndóol bi ñuy xoolee te doo nangu corruption. Mm-hmm. nga am sa liberté. Mm-hmm. donc maam Less li mu jàngale du mus a jeex ci àdduna mhm. te moom daf ko wane woon ci jëmmam parce que icône la woon donc léegi mooy ñaanal ko yàlla et ñu ngi ñu ngi ñu ngi remercier le président le fait mu jël turu si jox ko Mame Less Camara mhm. solo la mhm. euh, te xamoon nañu aussi seen relation donc yàlla na fa mu jëm daa fi mu jógee vraiment dëj bu metti la ci Sénégal amin amin Moussa euh, décès Mame Less Camara euh, Sénégal ñàkk kàngam gu mag jëm ci wàllum taskatu xabaar waaw man sax fa laa waroon ubbee bu ma ñëwee parce que Mame Less exemple la référence la modèle la ñun suñu génération ñu bëri tey nekk nañ journaliste c'est grâce à Maurice Camara bi muy bind chronique Abdou Sow dans Walfadjri parce que la plume était alerte à l'époque ñu bëri si ñun ci la bëggee journalisme ba def ko mais man li ma gën a neex mooy parce que yéen seen métier bi soo gisee ba fonk ku ma ni Mansour wala Brahim ils sont restés journalistes parce que journalistes yi en général au Sénégal maintenant c'est 35 ans 35 ans ngay am ngay am dem nekk conseil en communication bi cabinet changer métier mais nga gis journaliste buy liggéey ba am 40 ans 50 ans 60 ci métier bi jafe na même ñenn sax à 50 ans 60 ans il entre en politique bàyyi que en France dem maa ngi saan euh, France 24 Bruno Darou mais mag la ba léegi ñu ci plateau yi ñoom ñu ci terrain yi ngay dëkk Mame Less daa ngi moom à chaque fois muy dem ay reportage à son tout à fait mën na liggéeyam. tout xam na liggéey mais surtout c'était un grand professionnel. et un incorruptible. te loolu moo jafe c'est ça le mot en fait incorruptible Mame Less wala xam na ne c'est a corruption euh, malheureusement c'est plus les politiques c'était un incorruptible. oui non xam nga xam nga xam nga Ibrahima. ku ñu corrompre rek yoo la neex. yaa ko nangu. c'est la neex. c'est ça man Mame Less dama fonk lool parce que quand je le voyais un vrai journaliste. moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu jëm gën a fu mu jógee. amiin ensuite saluer la décision bu ko jox ceci mérité na ko. exemple la su fekkee ne les jeunes générations de journalistes xool nañ ci moom kon kenn du am déformation kenn du am procès kenn du am coow. c'est vrai parce que am na lu ma jàngoon ci moom un jour fa laay jeexalee xëy na su ma benn xëy dafa ne woon maam des dafa ne ko lépp loo bind rek lépp loo bind nga bind fi turu nit dindal turu nit boobu nga dugal sa turu waajur bu ko sa xel nangoo rek bàyyil mu jàll. su ko nanguwul génneel. Mhm. kon loolu mooy responsabilité. mu ngoog soxna Thiala dañuy wéy ak li nga xamante ne moom mooy beneen euh, yéenikaay bu wax tey jëlee euh, ci lu jëm ci dialogue politique ak li nga xamante ne moom mooy euh, kon woote boobu nga xamante ne njiitu réewu Sénégal Macky Sall woote na ko las quotidien naam sax ñëwaat na ci li nga xam moom mooy kon loolu lay di Mame Less Camara waaye dañuy jàll ci beneen yéenikaay muy yéenikaay buy wax ci wàllum dialogue politique wax naa leen ko sànq mu ngi nii ngeen koy gis ci écran bi Walf Quotidien nee na daal njiitu réewu mu ne nii jàpp na appaawam bu paree Mansour nañu wax lan mooy appaa nag Mansour dafa mel ni ci wàllum géej ak napp lañ koy xamee maanaam nga jël gé jën yi daal di koy jéema a kii. ange bi. xaw ma ne lañ koy waxee ci wolof Mansour boo paree nga wax ñu ko donc gis ngeen ko. Mansour boo xam maanaam mooy la ngay la ngay takk ci once bi. Mm. pour pour napp jën. pour na pour nax jën yi ñu ñëw. <laughs> donc gis ngeen ko loolu mooy li nga xamante nag Walf Quotidien wax na ci tey maanaam daal njiitu réew Sénégal Macky Sall ñoom euh, journaliste nekk ci Walf Quotidien dañoo jàpp ne xëy na njiitu réew Sénégal euh, lalal na ñi nga xamante ñoom ñooy euh, maanaam force vive yi ngir ñu ñëw daanu ci boobu la mbir woote boobu nga xamante ne woote na ko beneen yéenekaay boo xamante ne naka noonu tey jile waxati na ci lu jëm ci boobu lépp dialogue politique muy euh, le quotidien quotidien daal dina ci ñëwaat journalu Madiambal Diagne moom wax na tey ci li nga xamante moom mooy balo bule dialogue nga xamante ne njiitu réew Sénégal wooti na ko Khalifa nee na daal moom d'accord na Khalifa euh, tuwi ak nga xamante moom mooy euh, Sonko en non maanaam Khalifa daal d'accord na wuyu ji wooteeg njiitu réew Sénégal Macky Sall ki nga xamante moom mooy Mimi Touré moom tamit nee na daal du dem woote ji wala sax wuyu ji boobu le boo di ndaxte moom Mimi jàpp na ne ay deal politique yoo xamante ne njiitu réew Sénégal Macky Sall daf ko rek euh, tëral ngir daal di kon faagaagal ñi nga xamante ne xëy na ñoo faray ci euh, kujje gi beneen yéeni kaay moom tamit waxaat na ci muy bés bi le jour journal bi nag dafa ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy woote boobu nga xamante ne njiit réew Sénégal def na ko euh, ñenn ñi ci kujje gi rawatina coalition bi nga xamante ne moom mooy Yewwi Askan Wi ne daal ñoom daañu wuyu ji ku ci mel nii Khalifa Ababacar Sall keneen ki ñi ñu ci mel ni ñoom Ousmane Sonko wax na ko ni ki démb du wuy ji ci boobu lépp woote Aminata Touré naka noonu euh, ñëpp euh, wax ci li nga xamante moom mooy boobu lépp dialogue ku nekk commencé wone position am tax bés bi le jour jàpp ni fissure maanaam xajjaloo am na euh, diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy kon autorité yi nekk ci li nga xam ne mooy coalition bi léegi di Yewwi Askan dara daanaka bokk na ci ay ponk yu bëri yoo xamante ne tey jii yéen kaay yi xëy nañ ci euh, lu ci mel ni nag kaddu yi nga xamante ne Ousmane Sonko yëkkati na ko ni ki dem daanañ ci ñëwaat incha allah euh, soxna Thialla ci biir xibaar yi ngeen gër koo yaatal waaye nag dañuy jeexal ak tàggat yaram euh, journal bii di record ñëw ci lu am solo loo xamante ne dafay baax ñu daal di ci wax taxaw ci muy nag état de forme bi nga xamante ne suñu ndaw yi nekk ci extérieur maanaam Europe tugal ñu ngi fay wone bu baax a baax seen bopp ci li nga xam moom mooy wàllum tàggat yaram gis ngeen ko Bamba Dieng conquiert le parc maanaam Bamba Dieng daal dinay firndeel wax wone boppam baax baax taxawaay bi nga xamante ne am na ko euh, ci équipe bi nga xam ne moom mooy Lorient gannaaw ba nga xamante ne club am boobu moom moo daan euh, Paris Saint-Germain comme ni ngeen koy gisee noonu ci écran bi Bamba Dieng daal di armé bu baax euh, ci li nga xam moom mooy bal bi xam naa ne bal bi moom Mansour bu ko dóoree moom waxuma la waxuma la caax yi rek waaye xam naa leneen leneen mën nañ faa comme atte nag da nga dawul bagaar nag c'est que Talla moo dawul bagaar nag. dawul dawul bagaar parce que. lu jaaxal mooy après en. yaa ko def de dugal nga sa boobu ci dumuy duuda de mi ngi doon lay seconde jaajëfal la bu xam naa dañ ko gën a yaatal ci ci xibaar yi dañ des ak yow balaa Mansour di door uh, waxtaan bi ak suñu gan uh, ci li nga xam ni moom moo xewoon ci bésub tey bi uh, muy ñaari fan ci